les échos yéen kaay di xamal ne soldat yi nga xam ne rek ñoom ñoo nekkee ca Mali da nga xam ne rek ñoo foqati woon nguur ga ci IBK ñoom Ibrahima Boubacar Keïta ñoom kay kàddu yi nga xam ne rek yëkkat nañ ko jaaxal nañu bëri ñoom soldat yi nee nañ ñetti at la ñuy toog ca nguur ga dooga la amal kay jamono yi nga xam ne rek yëkkati woon nañ ko waa CEDEAO kàddu jaxase dëgg la